jërë ngeen jëf yéen sunu mbokk nat bu 221 people ñoo ngi leen di ni nuyu di leen di jaajëfal bu baax di ci delluwaat rek kenn ku nekk swàccuwaay maamaat li di kontaan ak mbégte bu baax nag comme ni ma ko fara def saa su nekk kilifa yi wala sëriñ boo xam ne dama laa dal ci biir site bi rek saa su nekk damay bëgg ñu yaatal ci xam-xam aja ki may dalal tey nag doonatu ko ji présenté te xanaa gëj fi mais xam nañ ko bu baax a baax ci milieu bi nga xam ne mu ci yëngatu mu di ñaan ak paj kooku mooy Serigne xalifa borom kànnaar bi tey nag dinañ waxtaan ci xam-xam comme niñ koy defee saa su nekk waxtaan ci xew-xew jamono mu di actualité loolu dinañ ci yaatal. aja kii daan ci diggante Tafatine Balla Gaye nee na ci digg bi laay jaar wax leen kii daan bés ba le 21 incha allah waaye duñ fa jógee dinañ waxtaan ci diggante Siteu ak Modou Lo ndax am na lu fa gis bëgg cee yaatal xam naa foofu révélation solo dina fa génne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 Euh, mbokk jullit yi. <laughs> mbokki Sénégal maa ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax a baax. Mm. leen ziyaara. <coughs> di leen wax yi ñëpp salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. Mm. leen ndokkeel ci tabaski bi ñu jógee mm. euh, di leen ndokkeel tamit ci at mu bees mi ñu dugg di ñaan yàlla. yàlla nekk atum xewal ak naataange. kenn bañ a yàlla dafa ñu fatu akbar dafa ñu xabul dafa ñu suñu càkkuteef. bi jaay nabil Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. tarkal la jërëjëf sëriñ xalifa borom kànnaar bi ñu ngi lay fay bu baax ginnaaw sëni set yooyu tànd ak dal acca ñu dugg ci waxtaan comme ni ma ko waxe loolu lañ fi yéene développé yaatal ci bu baax a baax ñi taatan jëriñu acca euh, cat ci boppam bëggoon naa nga am loon ci baaxe ba mën cee mucc ndax olof njaay nee na sàmmal te ñu ngi tardé cat moo leen tardé loo ana noo ci jëflante ak jaam yàlla yi waaw mbiru cat nag dafa nekk loo xam ne jamono ji mhm, micro bi euh, dafa nekk loo xam ne jamono ji bëri na lool lool lool lool si jamono ji mhm. surtout ci ñun ndaw ñi waaw da gis ndaw loo xam ne dafay tegu ci yoon nekk ci yoon wala yàlla commencé ko ubbi mhm. mu commencé am tur mbiram lépp du dox waaw mais day jékki-jékki rek fay waaw ay mbiram lépp taxaw waaw day dem day dem fune di ñaanlu fune ba sonn du gis dara des fois nag mu dem ci ay sëriñ ñu ne ko dañ laa liggéey des fois cat lu tax mu yéeme mooy. Mhm. Euh, liggéey dindi ko moo gën a yomb sax dindi cat. Mhm. ndax cat boo gisee addis yi si yontu bi sallallahu alayhi wax ci euh, ci addis nga xam ne kon cat nekk na loo xam lu danger danger la. ndax wax na si benn addis ne. Mhm. aksaru min ummati. Euh, aksaru man yamutu min ummati. bala xadaa illaahi wa xudrati bil mu ne lu ëpp si sama xeet bi ñoo xam ne dañuy dee. waaw ginnaaw bu dogal yàlla jàllee. mu ne bët la maanaam cat. moo leen rey. wallay ndeysaan kon dañuy jàpp ne kon bu dogalu yàlla bi jàllee rek waaw comme ñu ëpp ci xeetu yont bi ñuy dem di làqu mhm. kon cat moo leen rey wallay ndeysaan nga xam kon cat baaxut mhm. boo xoolee aaya boobu di alxuraan wa in yakaadu lazina kafaru mhm. loolu la fay wax ci wàllu cat lu wér te ñun ndaw ñi léegi dañ koo ñeme waaw nga gis ndaw loo xam ne maanaam dafay yàlla da koy dimbale mu am bayra waaw wala mu am alal mm-hmm. te du am musulaay wala lu wér nga wax am kaaraange mm-hmm. te kaaraange mooy lépp wala loolu nag mooy sabab léegi wàllu cat yi nag mm-hmm. cat dina def ba dem jàpp nit sax ngay feebar waaw nga dem si hôpital yi di faju duñ gis feebar duñ gis dara la lay ndeysaan lu wér ngay faju ba bëgg dee doo gis dara waaw waaw ñiy def analyse dafa joo duñ gis dara fekk cat la cat boobu nag dafa nekk loo xam ne nit bu ko bëggee a dindi si doomu aadama mhm. nekkul lu muy dindi benn fan waaw nekkul lu muy dindi ñaari fan nekkul lu muy dindi juróom ñaari fan waaw cat boo ko bëggee dindi si doomu aadama ba mu dañ ci moom wala mu uh-huh. wàññeeku uh-huh. dafay nekk genre traitement mu ngi mel nga dem si hôpital bi di faju ñu lay jox rendez uh-huh. ngay dem di ñëw mu lay jox garab ngay gis ne wàññeeku na si yow wala dañ na mu la yàlla may nañu si ay xam-xam ay yoon yoo xam ne képp kuñ si jëflanteeg waaw si kàttanu suñu borom bu neexee yàlla dinañ ko dindi si yow bu seetu si yow wi ci tamit dina wàññeeku si yow bu baax a baax dina taxalu ko yow macha allah incha allah kon mbokk mm. acca euh, jërëjëf euh, sëriñ xalifa acca euh, wàllum bayre dinaa ci ñëw ndax gaa ngi koy waxtaane sa bayre moom ñàkk ko am daal wërut mm-hmm. ndax sa bayre du waxi kese mm-hmm. waaw di nga siiw di nga am nit mm-hmm. ñu baax ñi dinañ la dëgmal bayre bu ànd ak koom-koom bismillah ci sa bayre boo waaw bayre dafa nekk loo xam ne dafa am ñaari façon bayre waaw am na bayre boo xam moom da siiw rek doo am dara léegi yàlla na ci yàlla musal waaw amin da ngay nekk koo xam ne daal da am tur waaye mhm. wàllu wàllu wërsëg ah. sa buntu yi di ubbeeku bu baax am solo boobu la wax bayre bukki mhm. ndax bukki des fois nga gis mu nekk ci àll bi sax ñee rey yeneen rab yi ñooy rey waaye moom day ñëw far foofu day ñëw lekk ba lekk ci te du fekkee bañ koy rey lu wér waaw loolu mooy bayre bukki mhm. bayre bukki nag am nañ ci yoon boo xam ne suñ koy liggéey waaw nekk ak téere waaw téere bi suñ ko liggéeyee ba pare xaatim moom lañuy dugal si biir xaatim bi. tey lëmasee ko sagaru muuma. awee ah. ko deru bukki suñu paree téere bi la ko jox doo ko takk si ndigg sa loxo ngay takk ah. ndax sa loxo bi booy jël xaalis si ngay moo ah, ngay tàllal ngay nangoo sa loxo nday joor nga koy takk macha léegi saafara bi suñ ah. ko liggéeyee ba pare mhm. moom yuuru bukki lee am ànd ak yuuru bukki nag lu jafe la la ilaha illallah waaw pour nga dégg sëriñ wax sa du yomb lu wér yuuru bukki li koy boole mhm. jox la ko na boo demee boole ko parfum nangam nga sangoo ko nii ak nii am wóor yoo koy sangoo ak bis yoo koy sangoo mhm. mais si kàttanu suñu borom weer wi nga ko sangoo waaw tere ba doo téye say million ci weer woowu yàlla dina la ubbi ba ñëpp laaj na yow fan yow fan nga jaar mhm. incha allah si kàttanu suñu boobu loolu mooy bayre bukki macha allah mu ngoog acca noonu la ñuy desandi ba léegi wéyal ñëw ci néew kàttan mhm. ñu bëri fi mu ne nii pour ñu yàgg ci sëy sax problème la mhm. ana nan nga ci jëf leen jaam yàlla bañ mën a yàgg ci sëy am minute yu xaw a sakkan tarkal waaw néew kàttan nag dafa nekk loo xam ne dafa bëri lool lool waaw surtout si euh, ndaw yi waaw bëri na si ñoom Euh, wàllu lekk yi <laughs> ñuy lekk léegi bu jàllee <laughs> rab dana koy def parce que da ngay gis des fois ñoo xam ne dañuy nekk ay ay jeunes <laughs> maam mhm. dañu lay wax ne dañuy téye seen awra di ko foye di ko mhm. foye ba daanu léegi nag loolu lu ko waral mooy rab moo leen koy def cay rab léegi nag rab boobu nag di la def loolu mooy dem ba wàññi sa euh, kàttan sëy mhm. nga dem ba yow une minute sax mënoo ko def si jigéen te góor amul lu dul kàttanam mhm. léegi kàttan nag boo ko wàññee si góor rek maanaam kooku moom pour mu denc sax wala jigéen naw ko du yomb lu wër lu wër mhm. ah, léegi nag rab dina ko waral loolu dina ko waral wàllu lekk yooyu macha allah loolu dina ko waral léegi mhm. nag moom wàllu kàttan waaw am nañ ci garab yoo xam moom moom tamit comme li ma waxoon si cat laay wax moom nekk na feebar boo xam ne kenn mënu koo faj ci une mhm. ku la wax mën naa koo faj si ñaari fan wala ñetti fan mhm. day wax lu ko neex ñun euh, faj bi ñu koy fajee ñu ngi koy fajee 40 jours 30 euh, traitement bi ñu ciy def macha allah 40 jours am na garab yu ñu lay jox mhm. nga naan ko boo ndékkee kaas boo demee ba midi ñaari kaas guddi boo reeree ñaari kaas moom ngay naan am na saafara bu ñu lay jox nga koy raxas si sa awra <laughs> am beneen saafara bu ñu lay jox boo xam ne ngay tàngal paaka ba tàng jër ba xonq nga def ko ci saafara bi moom yi nga def ko sa ndox bul naanati ndox yi robinet yi bul naanati ndox yi keneen del naan na ma sëriñ bi gis naa ne léegi daan naa def une minute waaye léegi mën naa ko sa biir wax boppam mhm. bëri nga koy jiiñ yàqu-yàqu yi ñee dugg mu xaw a tàgga témbe mhm. suñ xoolee rek ne leen rab la mhm. rab moom nan lañ mën a def ba mucc ci gàllankoor yi ñuy teg waaw rab na dafa nekk loo xam ne amul doomu aadama bi dund te amoo ko waaw mooy nga am bu baax wala am bu bon yàlla moo ko bindee ak ñun mm-hmm. moom yow moom mu ngi lay gis waaye yow mënoo koo gis ah, yaa nga nekk borom baatin dëgg nga mën koo gis waaye moom mm. doomu aadama boo gis miy dund am na rab xanaa nga rab bu baax wala nga am rab bu bon ah, waaw waaw doomu aadama boo gis mm-hmm. am na ko rab dinay yàqal nit ba tëj buntu wësëgam rab dinay def nit mu dof comme ñi ngay gis ñi dof nii waaw ñu naan dañ koo liggéey am na ñoo xam rab moo leen jàpp ñu dof léegi rab comme ni ma la ko waxee sànq dina téye sax sa ngóora mhm. rab dinay jël sax ba daf jigéen ngay gis jigéen yoo xam ne dañuy jaay seen bopp si mbedd yi nii waaw wallahi lazim am na ñoo xam ne rab moo leen koy def loo ah, a dafay ah, eh, jigéen tamit noonu rab nag nekk na moom it loo xam ne mhm. ni ñu koy fajee moom dañ koy faj si juróom-ñaari fan juróom-ñaari fan mhm. mais rab nag kenn mënu koo faj waaw te nga wax nit ki sarax bi muy def léegi da gis ñoo xam ne dañuy ñëw ci sëriñ mu leen fajal rab waaw mu leen wax sarax mais duñ ko def ah. léegi tant que sarax boobu génnul waaw ah, rab bi du wér du boo xam ne da ngay yàgg boo ñëwee juróom-ñaari fan si lañ koy faj rab si yow moom rab waaw juróom-ñaari da ngaa nekk yoo ñu boo xam boo ko naanee da nga nelaw lu mat fukki waxtu waaw ko nelaw mais soo yeewoo da gis sa baat bi day mel lu xaw a dee feebar bi muy wàcc foofu mhm. léegi nag dana am garab yi la joxaat une semaine nga gis rab bi dañ na si yow macha allah fekkoon da ngay daanu dootoo daanuti si kàttanu suñu borom macha allah jërëjëf Serigne xalifa boroom kànnaar bi jërëjëf ci xam-xam bi waaye jërëjëf ci leeral yooyu nga xam ne am na solo aca dañuy des ba léegi wéel jàll ci beneen ponk lan moo waral ñu lay woowee borom kànnaar bi waaw borom kànnaar gi nag lu tax ñu ma koy woowee mooy kànnaar waaw dafa am benn xeetu noob waaw buñ ciy liggéey waaw ci wàllu kànnaar mhm. léegi kànnaar bi nag waaw boo ko xoolee boo ko gisee si écran bi mhm. ñu koy bokk ak kanaar yi ngay gis ñi jaayi fii si kankaay yi mhm, mhm. kanaar bi mu ngi jógee Mali wala Gambie waaw mooy kanaar yi xew ni njëkk yi nga xam ne si digg bi lay tijjee ko ah. façon kanaar boobu la bu dee dafa am koo xam ne dafa am ku muy bëgganteeg wala mu am problème jëkkëram kanaar bi suñ ko liggéeyee ba pare ñu ngi koy ewee der xar bu weex benn melo mais bu fekkee koo xam ne moom tubaab la. waaw kii waaw moom ñu ngi koy ewee deru jën am na benn jën boo xam ne. waaw boo demee si géej gi moom ñu ngi koy wax euh, courant géej. jën boobu boo ko laalee da lay ñi napp xam nañ ko. waaw deram lañ koy ewee mais ku koy ew tamit du wax. <sighs> day noppi. ba pare waaw day jàpp jublu penku waaw léegi day noppi aw ko ba mu pare su paree nag ci xam-xam ñu ngi koy booleeg moso bu weex waaw comme percal bu weex uh-huh. bu xonk bu ñuul uh-huh. boo tëjee wax sa soxla ba tëj koo pare waaw moom bi uh-huh. léegi nag kannaar bi da nga koy denc kenn du ko gis jël caabi ko foo xam ne boo bëggee dindi ko foo xam ne kenn du ko gis moom kenn du ko laal percal la waaye si kàttanu suñu boom képp koo ci mënti tëj moo nit ku weex la wala nit ku ñuul waaw moo xam da ngeen di bëggante wala nga am ci moom soxla waaw wallahi azim lépp loo ci wax yàlla na ko def kanaar bi nooba tax mu jóg waaw def noob day def tasxir mooy li wax boole waaw lépp loo ci def rek bu neexee yàlla yàlla dana la ko defal ci kàttanu suñu borom macha allah bu yéeme yéeme la waaw waaw mm. jërëjëf acca nee naa leen euh, du naqaree jot ndax numéro bi dañ ko affiche suufu barre d'écran bi mu leer naañ yow jéem koo contacter rek dina jëflanteeg yow ba sa xol sedd guy kook mooy Serigne xalifa di boroom kànnaar bi acca euh, sëñ Khalifa ñëwal ma ci jaaro yi jaaro yi nag dañoo bëri sëriñ bu jog rek ne jaaro mm-hmm. wax rek nga ne gonko mm-hmm. sa jaaro am na lu ci yàlla def. lu mu la ci may ngëneel yu am solo. ñëwal ma ci secret jaaro bi waaye. waaw jaaro nag dafa nekk loo xam ne ngay dégg ñu béy naan la jaaru xaatimu Souleymane xaatimu Souleymane. waaw te dafa nekk loo xam ne xaatimu Souleymane. Mhm. dafa làqu léegi dafa mhm. nëbb. Mhm. mag ñi dañ ko doon nëbb. waaw bëri na ji koo xam ne boo ko laajoon mu ne sëriñ la. waaw di la indil xaatimu Souleymane bi. waaw kubar. jaaro bi boo xoolee ba mu la takk nii sama loxo. waaw man du ma moom. jaaro bi ne suñ koy liggéey mhm. dañ koy liggéey bi jant bi di génn suba teel ay sept heures mhm. lañuy am lu ñu bind waaw waaw suñ demee ba ay dix huit heures jant bi dugg waaw am na lu ñuy liggéeyaat daf ko noonu ba juróom-ñaari fan yi mat ama semaine bi jeex na mhm. léegi danañ jël sungufu or sungufu xaalis waaw am na benn cuuraay boo xam moom la ñu ut moom la ñuy lemaal ak téere bi waaw léegi nag boo ko defee dañuy tëggulu xaalis piir moom la dugal si biir jaaro bi waaw léegi nag semaine bi jeex na léegi nag amal beneen semaine bi ñëwaat chaque jour dina am lu ñu bindaat bi jant bi euh, génn mhm. ak bi jant bi dugg waaj a so ndeysaan ñaari fan mooy saafara bi léegi takk euh, jaaru bi mhm. di sangoo saafara bi mais saafara bi tamit nu mooy bi jant bi génn waaw ak biy ah. soo paree am na sarax booy def mais lii boo ko takkee waaw lépp lu yàlla bind mi wësëg waaw fii jant bi fenkee ak fu muy lépp lu fay wërsëg dina ñëw si yow macha allah kàttanu suñu borom allahu akbar jaaru bu yéemee yéeme la tarkal la waaw koy digal képp koo xam yaa ngi yëngu ci wàllu uh, bay rek uh-huh. uh, wàllu uh-huh. ngay yëngatu waaw wàllu liggéey lépp bu doon moo xam muudu muudu nga waaw nga bëgg yàlla ubbi la foofu mhm. boo koy takkee bu neexee yàlla da nga gis euh, ngëneel yéeme yéeme incha allah jërëjëf sëriñ xalifa borom kànnaar bi jërëjëf ci xam bi waaye jërëjëf ci leeral yooyu nga xam ne am na solo lii dee bokk ci li tax ñuy segg sëriñ si mhm. di leen di dalal ñuy waxtaan ci xam-xam ngir ñu ñu topp saa su nekk mën cee jëlee njëriñ lu kawe seen jort aca fa ñuy jeexale bokk na ci actualité mu di xew-xew jamono ni ma koy defee saa su nekk làmb ji li ci des te bëriwut mu di di Modou Lo moom nga tudd mook Siteu seen signature bi tànk di jër. waaw moo loolu nag moom dafa nekk mbër moo xam ne guddi yuñ hmm. nekk mbër muy samp. waaw guddi yuñ toll. nañ ko ba loolu moo tax mu jël roi des bi. moom nag bëri na ay séeréer yu koy ñaanal. waaw bëri na si ay mag tamit yu koy ñaanal. Hmm. moom nag lu mu ëpp mooy ñaanu kurus. waaw Modou Lo guddi yuñ toll ñu koy ñaanal si kurus. waaw ak di ko jëlee sarax. waaw loolu la parce que kurus lu tax mu yéeme. waaw mooy ki ñaanal si kurus moom mën na di gis say mbir foo toll. Ah. foo toll rek mën na di gis say mbir na defal sarax bi. waaw mën na mhm. ah. dafa am sa heure boo war a jéen. tarkalla am heure boo xam waroo koo jéen. waaw yëpp da am am na yére couleur yoo war a sol. waaw am yoo war a sol yëpp da siy da siy joué. léegi nag boo ko defoon nag yàlla mën naa def ñu daan la. Ah. waaw mais Modou Lo moom guddi ñu toll dañ koo ko samp troisième combat bi da ngay daanu. Ah. waaw loolu moo tax ñu jël Siteu mi. loolu <laughs> tax ñu jël léegi daan na ñaar. waaw daan bi dafa waroon daanu waaw. Ah. moo tax muy Siteu nag moom ah. yi dafa am lu ko wax. mooy dë fa dëkk côté Jonwaar. waaw dafa am lu ko wax lu ko dee moo tax fi ne nii gisoo ni muy doxalee moom jàpp na ni téena waaw waaye da def attention bu baax a baax a baax ndax dañuy wax ne. Mhm. borom baatin moom man leneen. waaw te muloo ay borom oh. a a am confiance bu baax a baax si combat bi. macha allah waaw. acca euh, lan nga ñu bëgg a wax ci Papa Boy Djiné moom itam euh, na ko gars yi di ko yokkal ñaan saa su nekk ndax defet yi bëri nañ wax dëgg euh, nañ ko yokk di koy ñaanal daal. ndax ah. moom soxla na ko fi mu ne nii. Papa Boy Djiné. Hmm, gàllankoor yi lan la. combat bu mujj bi ma seetaan dama ko seetaanee ba pare ba combat bi jeex. waaw dama seetaan benn vidéo ñu ne dafa am benn sëriñ bu ko tëkku woon. waaw léegi nag ñu ne bi kaw la ma dégg ñu ne sëriñ bi toj na Kaolack yëngal na fa newetaan waaw moo yàq papa booy jinne te ma ne kooku sëriñ boobu ñu wax moo yëngal Kaolack toj ko si newetaan yi kanaa ah. ba muy yëngal Kaolack toj newetaan boobu man dama faa nekkul <laughs> waaye Kaolack moom yaakaar naa ne newetaan waaw ah. kenn mënu koo yëngal surtout at yu mujj yi newetaan am ah. kenn mënu koo yëngal te doo si tudd sama tur man ta nekk kon kooku xaw ma ko mm. léegi nag maa ngi koy wax bu fekkee dégg na sama message moom papaay booy jine waaw su jokkoo ak man waaw billaahi lazi laa ilaha ak kurus gi ma téye lu ma si ñaan yàlla bu ko yàlla nag bu fekkee lu ma wax amut waaw su jëflanteeg man waaw ko benn dërëm mm-hmm. est-ce que loolu bu nekk si moom ma dind ko ah. bu ma ko indiwaatee sa yow nga ne dañ koo yàq boobu dëgg la dëgg la dañ koo yàq ah. maa ngi dégg am ñuy wax naan ko ay tasal ak ndey géey rek ay sensé ak tur bu ko neexee na uyoo ñu nu naan uyoo sax papa booy jine ma defar ko tarkalla samp ko mu ñëw barka rasulaay mi daan mbër su ñëwee dinaa ko jox làpp takk boo xam bu ko takkee mbër mu dóor da ngay doo amaatee combat moom assuré nga kon day am victoire làpp tàkke boobu ñu ngi koy liggéey si nag boo xam ne doom ji dafa dee si biir bi allahu akbar dee si biir bi ñu ngi koy liggéey si tabat yaba tabat daa ñëpp xam nañ ko si laa koy liggéey jox ko mu takk ko si loxo bi mu dóoree mais benn combat bu nekk rek day yàqu day utiwaat beneen saa bu bëree si dóoree nit mu daanu <laughs> mbër sax mën na ñëw di la autorisé di la dóor waaw moom far mu daanu des nga gis combat yoo xam ne mbër mi moo doon dóor far daanu <laughs> loolu laa koy liggéeyal su ko dégg na ko jàllale waay ndax fi mu ne nii moom papa ñëpp ko yéene mu am ndam ne nii tarkal la moom papa boo ji ne li ma mm. dal si moom moo ma dal si benn waykat bu ñuy wax Mandiaye Seck ah, Mandiaye Seck seetaan waaw yaayam mi def benn interview interview bu daw yaram waaw ma ne kii de xaw ma nan ba gis bi waaw wala Mandiaye mii waaw su ma jotoon si maire bi. wala ma mhm. jot si ma njaay waaw dinaa ko samp ba fu ñuy dégg magam ji Wally Seck ñu ko fay dégg si musique. macha allah yaayam daf ne da koo bëgg. waaw te moom ma gis dafa xaw a tardé si musique. wallaay ndeysaan yaayam yaakaar naa ne su ma jum du fekkee amul ko moom kese si doom bu góor xam naa am moom mooy mag mhm. mooy taaw waaw comme kooku dafa war a dimbale yaayam waaw war a dimbale fay mam comme kooku kuñu war a jàppale la wala mhm. allah mu ngoog am na solo acca ñu jeexale ci politique mu di niñ koy doxale saa su ne jëmale ci patriote yi ci ñoom Ousmane Sonko Bassirou Diomaye Faye coow li nag bëri na fi mu ne ci ñoom waaw waaw xam nga boo xoolee yaakaar naa ñu ngi mujjoon def interview man a yow avant élection yi mhm. mois de janvier xaw a février mhm. lañ defoon interview waaw boo xoolee maa la am yu ma la waxoon si ñoom mhm. am lu ma la wax si Amadou Ba ma ne la Amadou Ba waaw li ma ko gisee la may bañ lu daloon Mimi dal ko lu daloon Mimi Touré la Mimi dañ koy yàq ku yàq nag jigéen la waaw si parti APR boobu la bokkoon wallaay ndeysaan ni Mhm. ba mu waaye daanaka du si jëriñu mhm. ndax dañoo yàq bidiwu nguuram léer lañu yàq léegi nag am na ay ñu ko jege ñu ma woowoon wax man exactement mhm. ne ma dinañ ñëwaat waaye gis déggaatuma la gisoo kenn waaw léegi Amadou Ba nag loolu laa ko doon bañal moo taxoon ma am yu ma ko waxoon nag waaye nag gis nga doy na waar fii ne gañe nañ ko uh-huh.

bu damul dafaru juwaat waaw président de la moom du ko dégg ci Sénégal <laughs> baadu billaahi wal kitaab na mhm. waaw léegi nag maa ngi wax Sénégal yi leen dana am beneen politicien bu judd boo xam ne ci kanam waaw maam comme ni Sonko mel ni lay mel Sénégal yi dañ ko bëgg lool noonu lay mel noonu lay mel amee noonu tur waaw ah, sëñ bi ku nag boo waxee nit ni Sonko dutu amate dañuy wax waaw Abdoulaye Wade mag la meloon ba fi jógee mhm. yàlla andi kii mhm. football Ah, ñoom Messi jeexaluñu ah. léegi xale yi fël a ah. ñoom Messi am na ñu fi nekkoon wala ndeysaan chaque siècle wala chaque ay année dix ans loo gis seen doxalinu réew mi Sonko Bassirou keroog ba ñi nga xam ne faloon nañ ba Sonko fal na gouvernement am ba fal ministre yëpp ministre bu si nekk jël naa sa tur xool ko waaw daf ko si ilmu nujum seetal la si ilmu nujum xool say mbir waaye gis naa ni ministre yi yëpp ñëpp waaw ku si nekk poste bu ñu la jox yow longu ko da liggéey waaye nag diggante Sonko ak Bassirou Diomaye Faye am na ñu siy xeex si wàllu baatin bëgg tàggale leen ñoom ñaar nga xam ne suñu wut rek seen nguur gi day am def loolu waaye mën a réussir ah seen oppo seen seen seen moo gis dana am euh, opposant yi fa nekk opposant yi nag bëgguñ ñoom ñaar ñu réussir ndax bu ñu réussir rek mhm. mooy politiciens yi moom dee nañu wet mhm. léegi nag moo tax am na ñoo xam ne ñu ngi leen di xeex gis naa ba may xool ministre yi gis naa benn ministre boo xam ne. waaw ci ministre yi. Mhm. gis naa si koo xam ne këram dafa am problème. këram waaw dafa am ñaari jabar. waaw benn jabaram bi. ko mhm. wan ginnaaw. Mhm. dafa yor dafa yoroon benn jabar aaw. waaw mu takk ñaareel. wan ginnaaw aaw bi. Ah. léegi nag këram dafa xaw yëngu. Ah. léegi nag bu si ñaan lu wut. wala xamul si loolu dëgg. waaw mën na dem ba yëngal. waaw posom bi nga xam ne moom la nekk di yor di liggéey. waaye kooku kan la waaye ngir nga baaxee ko rek. de du que euh, jamono ji boo <laughs> a doy waar. Ah. waaye li wax junj. ci nguur gi la nekk actuellement nii waaw ministre la. waaw junj doy xel. Hmm. moom xañ na bu ko seetalee wala ay mbokkam seetaan ko. dañu xam ministre bu ñu doon ña ñaari galon. cey ñaari jabar la yor. Hmm. aawo bi nag da ko xaw wan ginnaaw. Hmm. moo tax guddi yi ñu toll nii këram dafa xaw a te bu si dëgg mën na dem ba jàpp wàllu bërëbam liggéeykaay maam perturbé ko si liggéeyam du xam lu muy a liggéey <sighs> moo tax ma ne kon na def ay sarax te ñaan lu si ndax ñaari jabar boo lañ yoree waaw il faut nga am noo doxalee loolu xanaa du sonko de wala déedéet du sonko ah. ministre la sonko mooy premier ministre mais ministre yi fal la sonko moo leen fal xam nga ministre ko kan la war a doon waay ñaari job borom ñaari soxna yi bëreewut noonu doo génne président beeg Sonko daal keneen xamatuma keneen ki daal keneen ki xamatuma ko du Diomaye du Sonko <laughs> waaw moom benn la yor ministre yi daal si ministre yi daal <laughs> moom bu ko seetaanee dina ko xam wala waa këram ko dina xam na <laughs> mu kook aca ci lan ngay jeexale waaw ci lu ñuy jeexale nag mooy comme lu la wax sànq ma la na mhm. moom ñu jëflante mhm. waaw buñ jëflantee mhm. mu xam ne li may wax nii dëgg ju wér péng la waaw papa Boy Djiné mii ñuy wax dañ koo yàq làmb ji mm-hmm. ba mënul am victoire saa bu ñëwee rek biñ ko boolee ak paa sax ki mujjee bëree nii paa la daan ko doy na waar dafa nekk loo xam ne dafa metti lool ab sëriñ taxaw fële mm-hmm. naan maa koy yàq mm-hmm. léegi nag moom mhm. tooñu ko moom génn na neneen tooñu ko waaw ñii naan ko tasal ak sa jabar ji mhm. te loolu du sa mooy lan lay ndeysaan loolu kay mhm. ma samp tarkalla dindi gàllankoor yi nekk si moom yëpp ko manjaay nga xam ne dañ ko dégg fi ñuy dégg magam Wally Seck jërëjëf waay suñu borom incha allah jërëjëf loolu